terme yoo xam ne mu yoo ci jaamuwoo yàlla dara dara nee soo waxee baat yi ma lay bu fekkee ba koy wax rek teewul gëm nga yàlla soo waxee baat yi ma lay wax donte ne gëmu woon yàlla ci période boobu sax boo waxee baat yi ma lay waaj a wax incha allah suñu borom jéggal na la bàkkaaru junniy at yoo xam ne da nga koo toogoon di ko mooy yàlla. baat yi ma lay waaja a wax yi nee nañu képp ku ko wax bu deewee bay dekk ci biir bàmmeelam buy génn ci biir bàmmeelam xaru kanamam gi de day leer naññi day leer naññi day leer naññi. ba mel ne que laylatul maanaam weeru laylatul badar ni muy leeree xaru kanam gi noonu lay leeree di melax. wax nañ ne baat yi mën a waaj a wax képp koo xam ne wax nga ko ci weeru sax baan kon góorgóorlu ci bala laa weeru raw soo ko waxee ci weeru sax baan suñ borom sax day mujj bindal la ca boppam wala bindal la ci diwaan ne diw séddee te xam ngeen ne mën nañoo wax ne martaba bi gën a kawe après nabi euh, anbiya mooy si mooy siddiq googu ndax mi ne nabi yi na wa siddiqin la suñ borom tegoon ba muy lim ne yonenti yi dana ñaare bi moy ci di xene kon na yow fofu la suñu borom di bindal bàyyil xel ne am na ñoo xam ne borom kasaab la leen di bindal xenaa kon yow wali yaasa billah kon na yow bo beugé suñu borom bindal la ci manam dëgg la kon ya allahu akbar lu màgg la neena fi xel gor lu wax baat yi ma waji wax ci weer wi ñu nekk ta moy weeru saxbaan kon farlu gor gor lu ci te o ci bi kep ko yene aw yiw muy sa yaay muy sa baay muy sa maam muy sa mag muy sa rak waaye bepp soppé bo xamanteni yene ko ko aw yiw ku nëbbu aw yiw nag def nga bàkkaar bu rëy rëy ku aw yiw am nga yiw bu rëy rëy baat yi mooy lan mooy nga ne laa ilaha illa allahu wala naabudu ila iyaahu muxlisiina allahu diin walaw kariha alkaafiruun loolu rekk la laa ilaha illa allahu wala naabudu ila iyaah muxlisiina allahu diin walaw kariha alkaafiruun baat yi mbokk yi li ñu nekk ci yiw nekk ci ngeneel kenn xamu nu toll kon lum gàtt gàtt fexeel ba boo ko mënee balaa weer wee dee bis bu set nga def ko ñetti yoon soo ko mënta def bis bu set ñetti yoon def ko bis seet set benn yoon boo ko mënta def bis bu set benn yoon fexeel internet bu jot ko nga def ko ñetti yoon boo ko mënul léegi fexeel ba weer balaa dee nga wax ko benn yoon ci kaw laa laa ilaha illa allaahu wala naabudu ila iyaahu moxlisina allahu diin walaw karihal kaafiroon may ñaan yàlla defal ñu tawfiix dañu fekki ko ay ati ati at te at mu ñëw lan ca jaamu yàlla nanguñu ko bi jaay Mustafa alayhi salaatu wasalaam